waaw xaar bañ pare tontu waaw léegi nañ waa waa ñu continuer bàyyi ñu continuer euh, xam nga léegi abu dafa ñu biir Siteu bu la jàppee day ndengeñ effectivement mhm. damay gis na day ndengeñ parce que mhm. yaakaar naa loolu jaadu na mhm. mais benn moment tamit Siteu xeex na ak yow jël si la bi mu dawee sëq sa geño ma gis ko loolu nga xam ne bokk na ci ay bëreem mooy mu kal la mu yëg la ca ginnaaw kal la yaa ngi dégg foofu tamit pour man di nga dem foofu noo def ba génn ci Babacar nee naa la man damay bëri wala na ngeen comprendre damay non wallaay damay bëri bëri rek laay def gis nga moom dayoo ba seex ma noonu. waaw boo xoolee ma mbej bopp bi bopp bi laa bloqué ci kaw. ba pare pivoté génn fu ma taxoon. parce que xam naa ne su ma fa taxee dina ma yóotu kalma. yaa ngi dégg ma pousse bopp bi. désesté génn fu ma taxawoon foofu noonu ma génnaat côté boobu noonu. parce que bu ma fa taxawoon moom def may gën a seex te bu seexee def may yóotoo kal bi. moo nga maanaam kalbeese ma puus bopp bi. waaw génn fa ma taxawoon génn foofu. léegi ba mu waroon euh, ardo bi parce que benn moment ardo am na ci combat bi. mu dem suma ma jumul trois fois yo xamne euh, bi mu ñëkke dem ñëwaat na dem ñëwaat dem parce que dafa continuer woon di naaj ban moment la ko lak tuuse ba lolu am ci combat bi ak foko door wa amna ben na direct direct du gauche la bo xamante daf ko dal euh, fi ci bakken bi. ak uppercut yi nga xamante ne moom moo génn foofu noonu waaw yooyu ñoo ko gaañ. waaw mais Babacar loolu ci la wala ba wala wala. bañ noonu si la uppercut yi génnee. Mhm. dafa am lu ma gis ci biir combat bi ba ñu mitaan yi ñëw parce que Lac de Guiers foofu dafa mel ne dañ koo conseillé que ni dama nga jeexal combat bi parce que bëri na foofu bëri benn bëri heure si te dóor ko ñaari ci daal ci biir combat boobu noonu lan moo waral Lac de Guiers gëdd si te jeexal combat bi ci heure boobu xam nga tey bama ñëwé jakarlo ak mom ma wax ak doon mu wax ma lu may wax bama ma diko attaqué mom dafa mus su mëne gërët day arrière yokk pa ci ginnaw ya ngi dégg su ma gëddé mu arrièreaat léegi amna na benn gëdd bu ma gëdd sama tank ba mu tegoo fa xaw tarxis tarxis na gaay du nga ma mi tek sama tank ci suuf sentir na dem na mu jékki-jékki ini gauche droite ana gauche droite pour nga taxaw la wala pour freiner wa gauche rak ko doon képp mu taxaw la. wa ah. parce que combat bi dama gis ne yeen ñaar dafa am lu ngeen doon wut pour man. yow da am lo loy wut parce que dama koy faral di wax la day songu te bu la fekke fi nga taxaw bu la songé mom day jeex mais si ta tamit des fois sa yo ko da fay mburu tank bu la dóoree tank da ngay suru da mel ni tamit bokkon na ci lu ngeen doon calculer ñaar ci ci bi de. non man suma songé du échec de. Ah, Babacar la wax moo tax ma ne Siteu tamit daa mel ne xam na loolu. moo tax taxaw moo tax taxawul benn place. waaw yow itam bëggoo koo songi ndax xam nga ne day bëree tànk song mu wóorul. parce que damaa gisul ma si song. waaw moom laay song bu ñoroon. da koy da koy tënk féete suuf. waaw dara gi mën mën na daal. demal vas-y. <laughs> nga moom ni mu taxawee. waaw bu mu nee yunn pour ñëw. day arrière. day yàq jàng yi. yaa ngi dégg. dem taxawee côté bi heure bu ma toggee pour mu ñor su ma ko nee gauche gauche gauche mu taxaw fu mu taxaw su ma bëggee ñëw day yàq jàngi génn foofu noonu yaa ngi mais tamit bon am na conseil conseil nañ ko. Mm-hmm. xam naa ne masque mbargaan moo fa jaar. Mm-hmm. naan itam du ngaa du ngaa boobu. comme euh, différence âge bi kit euh, poids bi ngeen am le fait que mom mu nek 108 yow nga nek 100 et quelque 140 je ne sais pas bi nga don est-ce que Lat waru wona meuna gawal combat vu que doole bi différence bi dafa bari de trop. faut mës a gisee poids lourd bi gawal combat. poids du poids. non poids lourd du song. poids lourd day direeku pour gaay xam. poids lourd boo gis mu song mooy lor na boppam. poids lourd moindre moindre geste rek nga def quatre appui. te dem na nga sóor loolu ci biir combat bi. quatre appui da nga ko doon sóor xanaa. kon sóor démb. non parce que tey mbër buy pesé cent quarante kilos ak kuy pesé cent huit kilos wala cent dix kilo moom moo war a ñëw songo te moo la waroon song ma ciy toll man ba ma ciy tollu samay morom. dama leen fekk jax jëlee leen fi. ba ma fekkee samay grand ci làmb ji. dama yor benn poids ñoom ñu yor poids plus que man da ngay xool sama combat yi ni dama ñëw jëlee ko fii moom kay moom moo waroon ñëw song mais man li ma waxoon def naa ko. li waxoon def nga ko mais am na ñoo xam ne mhm. ba tey jàpp nañ ne euh, Siteu lii ndam la ci moom parce que yow par rapport ak doole bi mhm. ak poids bi ak ni ko ndaw si waxee mhm. ak jitu lamb ji tam parce que yow 2004 nga ñew moom mu 2009 ñu bari japp ne kon mm. yow ya amun favori ci côté bob bo ya ya favori. favor bi kon ñu ñu bari japp ne kon combat bi donc ko waron jéxal ak Siteu ci jël wal bit gang <laughs> gars yi dañoo yaakaar ne léegi bu ma jël rek mom du am ay mbokk yu muy dem wuri no lamb kay bo amé bo boo jëlee la dëgg la dëgg ko mën di jël rek di nga dem and ak say mbokk jëk sa mais pré ah. non parce que lag la. Mhm, lag la. et lag lan moo tax tamit parce que man bon ak lu man di wax sa combat sa carrière ba mu commencé 2004 ba fi ma koy waxee tey gisaguma mbër daan la ba toog sa kaw loolu tamit lu tax. waaw lan moo tax. waaw ah, loolu moom dañ koy laaj Allah. la ñuy wax loolu moom loolu moom mënu ma la non non non non non non non déedéet. man parce que Babacar Babacar kaay ma wax ba gis nga jëb yi. bu yàlla tuddee damay daanu wallaahi bu kenn dem ñaan. damay daanu pour force. non man dama bëggoon xam sa maanaam ci sa bëre la sa doole la wala say adversaire ñoom ñoo amul argument yu ñu la war a jàppe daan la ba nga tëdd quoi loolu laa bëgg a xam. quoi loolu nga bëgg a xam entraînement la.